jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu dellu siwaat ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk ñu dellu am mbégte invité Arona Touré Arona Touré nag di yëngatu ci lu jëm ci wàllum politique yor benn mouvement ba tudd. Euh, pencum Sénégal mu nekk euh, consultant international xelam màcc na jëm tamit ci xayma lépp loo xam ne aju na ci wàllum pauvreté xelam tamit màcc na jëm ci wàllum stratégie euh, politique ñàkkul am na yu des Arona <laughs> jërëjëf merci beaucoup Abdou Khadre donc may kontaan ci invitation bi di nuyu sa auditeurs yi di ñaan yàlla lépp loo xamante ni wax nañ ko fii nii mu doon luy jariñ auditeurs yi di jariñ Sénégal gi yëpp Euh, naka pencum Sénégal. waaw pencum Sénégal euh, mu ngi ça va ça va très bien wax dëgg yàlla parce que mouvement politique citoyen la bu am actuellement on est représenté dans six régions du Sénégal ñu ngi avancé ndànk-ndànk bon si élection locale yi ñu jógee euh, présenté nañ benn candidat muy man à Thiaroye-sur-Mer on avait un autre candidat à gis mais dafa dem ba ci biir mu am ay problèmes familiaux mu retiré candidature am. Euh, parce que objectif boobu rek lañu amoon ci élection locale yi c'était que ñu def lu tout pour euh, ñun ñëpp ñu concentre wu sama élection à Thiaroye-sur-Mer bon yàlla dogal na li mu dogal mais mouvement mi ngi continuer di liggéey daal pour avancer. d'accord euh, mouvement Sénégal euh, mouvement pencum Sénégal euh, mouvement pencum Sénégal ci coalition jot na nga bokk yaa ngi ci biir coalition jot na ba tey. Euh, waaw man na maa ngi ci coalition jot na depuis bi ñu ko créé en août 2019. et euh, avant j'étais dans Sonko président maa ngi woon Sonko président euh, bi ñu jógee Sonko président ñu créé la coalition na en août 2019 malgré le fait que après Pastef dafa génn ak yeneen parti man je préfère rester dans la coalition Jotna donc ba léegi maa ngi ci coalition Jotna actuellement euh, man vice président la vice président la au niveau de la coalition Jotna. Euh, maanaam euh, coordonnateur euh, national bi président. Euh, non c'est-à-dire que jot na ni mu organisé wu mooy dafa am ce qu'on appelle la conférence nationale des leaders mais dafa am aussi euh, pour conférence nationale des leaders président moo ko jiite mu am ñaari vice président yu koy assisté après mu am maintenant ce qu'on appelle la coordination général euh, le CEN le comité exécutif national comité exécutif national boobu aussi am na un coordonnateur boobu moo am coordonnateur waaw en léegi coalition jot na. Euh, lan moo tax moom mënutoon demal boppam ci élection locale yi. mënoon a demal boppam mënoon a demal boppam euh, benn moment sax discuté nañ ci pendant très longtemps septembre 2022 euh, plus plutôt septembre 2021 waxtaan nañ ci lu lu yaatoo yaatoo yaatoo mais suñu analyse politique joxoon nañu ne élection locale yu 2022 yi élection coalition la élection coalition la comme un peu les élections de 2009 élection coalition la boo duggul ci coalition bu xaw a mag tuuti bon mën nga am say nit man nga am doole et tout mais boo duggul ci coalition bu xaw a mag tuuti boobu moytul euh, doo barile la ay ay maire ak ay conseillers moo taxoon euh, on avait tendu la main bon on avait discuté je veux dire ak ñu bëri discuté woon na ko ay Yewwi ay problème yu ndaw tax mujjuñ dugg Yewwi Euh, après aussi waa wàllu ñu waxtaan ak ñu tendre ñu la main parce que ñu nag CRD ñu àndoon donc CRD mooy ñoom Abdoul mbay ak ñoom Mamadou Lamine Diallo euh, ak euh, ñoom juge Dème et cetera ñoom Thierno Sall Sall finalement bon ñu bi ñu waxataan nekk wàllu ci la ñu ëpp open possibilité pour dem donc après ci la ñu pour dem ak wàllu mais mais Yewwi Wi lan moo yàq Euh, médiation relation bi ngeen doon euh, créer pour pour boo ànd dem ci élection yi. bon Yewwi euh, négociation yi à l'époque c'était entre Khalifa Sall ak Abdoul Mbaye Abdoul mbay moo doon négocier au nom de CRD Jotna mais li ñu gisoon daal mooy amoon na ay jafe-jafe pour bon pour ñun c'est une mauvaise volonté de la part surtout de de Khalifa Sall. Euh, parce que maanaam da ngeen a jàpp ne xalifa moo bëggatoon ngeen ñëw yeewi. bon ñun ñun loolu lañ conclure parce que bon bi ñu defee charte bi envoyé nañu charte bi nañu da ngeen war a signer charte bi ñu def ci ay amendement euh, bi ñu envoyé amendement yi xamal nañu ne amul woon telement de souci pour ñu jël en compte les amendements mais dañoo retourner charte bi bi mu pare dañ ko retourner dañ ko waroon retourner ñi bëgg bokk ñëpp ci coalition bi. ñun on s'est rendu compte kenn envoyé waatuñu chart bi. bi ngeen voilà donc bi ñu def amendement. Ah, même même signé affaire réserve. voilà dañu jékki-jékki daal jour boobu le même jour ci jour boobu ci ngoon ci la Yewwi waroon na def euh, point de presse amul conférence de presse pour diir que coalition bi taxaw na ñun ci rajo yi ak ci télé yi lañ ko déggee alors que ñeneen ñi waroon bokk ci Yewwi yépp euh, ils avaient déjà signé la charte et avaient déjà reçu la convocation que ni jour boobu la ñu waroon def. à la conférence de presse à 15 heures ñun ci rajo bi lañ ko dégg ak ci télé yi. mais est-ce que ah, est que amendement yi ngeen def bi ñu leen yónnee charte bi est-ce que amendement yooyu euh, si la waa yeeyu askan wi euh, nangu te ànd. waaw mais xam nga même bu fekkee ne d'accord wuñ ci amendement yi sax même bu fekkee ne d'accord wuñ ci parce que du ñun rek quoi ñun yàlla xam nga yeeyu bari na ay parti plus de vingt parti politique la donc c'est pas forcément que yaa am raison wala yaa am tort. mais lu mu gàtt gàtt ñu xamal la ne lii mooy charte bi ñu ah bi ñu bi ñu bi ñu final final bi ñu bi ñu war a signé boo ko xoolee mu doy la nga signé boo ko xoolee doy la nga bañ a signé loolu la mais loolu amuñ ko ci te alors que ñi si des ñëpp am nañ ci loolu ñi signé yëpp. ils ont signé chart bi nga xamante ne bii ça a été amendé parce que ñu bëri aussi defoon nañ duñ ñun rek ñoo defoon na observation am na ñeneen ñu dafay observation donc ñu de bi ñu on s'est rendu compte du fait que ñun en tout cas amuñu retour bi dañoo jekki-jekki dégg ci ci tel ci ci ci rajo yi ak ci télé yi ñuy wax ne ñoom jour boobu la ñu war def seen conf seen point de presse conférence at presse à heures bon mais bi mu ci jógee sax euh, am nañu am na ay discussions yu ñu amat ak des membres ñu bëree bëri jëm nañ dabaatal parce que bon euh, mais après daal c'était un peu te comme temps bi bareetul woon moo taxoon euh, entre temps toog leen xaar quelques jours ñu doon discuter ak ñoom continuer discuter ak ñoom pendant quelques jours mais discussion yi c'est allé beaucoup plus vite avec wàllu ko avec ñoom. Ah, euh, mais mais euh, Arona Touré est-ce que tamit ndax coalition jot na coalition la boo xam ne. Euh, président Ousmane Sonko ci la nekkoon daal di mujjee retiré wu euh, est-ce que du moom moo bañoon ngeen duggu yeewi jàpp leen loolu. est que du moom. Euh, moo bañoon ngeen moo leen si ngeen dugg Yewwi est-ce moom ak jàppoon ngeen ne bëggoon na ngeen ñëw Yewwi non président Ousmane euh, waxtaan na par la suite ak euh, des membres de la coalition jot na te bu ñu pré waxtaan na ak président coalition bi de l'époque docteur Ablaye ñaan waxtaan na ak ñeneen le président de le le président de la commission relations extérieures ak ñeneen ñi nga xam ne ñu bëri ñu nekk ci jot na mais man gëw ma ni moom moo bañoon ñu ñëwaat quoi bon parce que wane na volonté am pour que ñun ñu ñëwaat te wax nañu ko quoi wax nañu vraiment que ni euh, bu sañoon euh, jot na day ñëw foofu noonu exprimer na ko à plusieurs reprises mais comme ni ma la waxee bi ñu defee point conférence de presse bi ba pare toogaat nañu ay quelques jours di waxtaan. mais bon après ñu ci bari euh, se sont prononcés comme jotoon nañ commencé bi ñëlee kii bi rek bon dañu commencé di discuter avec la coalition wàllu parce que temps bi bëreetul woon. d'accord léegi euh, jàll nañ ci euh, li nga xam ne mooy élection locale yi ban ban jàngat nga ci def. bon jàngat bi ñu ci am mooy d'abord di féliciter encore une fois Sénégal ci boppam parce que wane na ne. mën nañu organiser léegi mën nañu organiser ay ay ay ay élection euh, ñu war ci tirer aussi beneen expérience mooy que opposition bi bañ trop di perte temps ci yenn discussion yi ak yooyu parce que bo man j'ai di à plusieurs reprises ci ay émission rajo ak télé que fichier électoral bi c'est mën naa am ay problème mais fi ñu yéegal problème yi yeggul foofu parce que fichier bi def nañ ci élection à plusieurs reprises Euh, on a perdu facilement presque deux ans ou plus ci discussion yooyu noonu après les élections présidentielles de 2019 donc ñun bu fekkee ne dañuy wax ne euh, élection yi dañ koy organiser à date échue moom maanaam bu jotee rek ñu organiser ko ñun aussi dañ ci war a bàyyi suñu waar donc ñu yan yi ñu xoolaat ko et ñu koy discuter en amont duñ bàyyi ba élection jot ñu koy soog a discuter bon deuxièmement mooy deuxième élément bi muy tiré mooy la maturité du citoyen sénégalais fi mu toll nii sénégalais xam nañ lu ñu ñu voté te xam nañ lu ñu bëgg élection bu nekk ñu wane nañ ñoom wax dëgg yàlla xam nañ lu ñu bëgg ba élection yi amee nii gis nañ ne euh, ils ont voté pour l'opposition wàllu am na ci euh, plus de 400 000 voix euh, Yewwi aussi am score bu baax ci élection yi mais li mu wane mooy que opposition l'opposition a besoin de se regrouper loolu aussi bokk na ci bu fekkee ak élection législative yi pour éviter le syndrome li may tudde syndrome de 2017 parce que ñii aw fi ñii aw fële gis nañ lim lim lim ñu coûté 2017 leer na par exemple Dakar on l'a perdu avec moins de avec ay 2000 et quelques voix bu fekkonte ne dañu ànd ak PDS wala ñu ànd ak beneen parti bu boo xamante ni bii parti bu mag la à l'époque Euh, duñu duñ ko perte parce que 2000 voix ak niñ ko niñ fi niñ li jëndee ba am seen 2000 voix donc suñu regroupé woon fu mel ne Dakar duñ perte député yi donc euh, euh, bon loolu loolu daal mooy jàngat bi ñu ci mën a def mooy que aujourd'hui le peuple sénégalais commencé nañ génn nañ ñu génn ci bo benn bokk yaakaar boo xoolee seen seen ñu ngi wax ne ñoo gagné fu bari mais boo xoolee seen score day gën di wàcc. day di wàcc et donc bon am nañ yaakaar na bu opposition bi àndee discuter sereinement avec des objectifs précis xalaat nañ ne war nañ ci mën a génn la mais euh, Arona tamit euh, dañuy faral di wax ne dafa am yenn parti politique yoo xam ne wala ay nit ñoo xam ne aussi dañuy euh, xaw a naqaree àndal ndax parfois amaan na li ñuy laaj mën naa jéggi dayo wala dañuy laaj loo xam ne mën nañu koo jàppee sax loo xam ne presque dafay nekk lu impossible. Oh, toujours euh, négociation ci élection dafay metti loolu moom xam nañ ko par expérience mais am nañ ca expérience am na expérience yu ñu dund 2009 ah, bi benn Siggil Sénégal di taxaw dundu nañ expérience bi bu boo xamante ni euh, fàtteeguñ ko muy expérience élection locale yu 2022 yi gis nañ par exemple tey jii nii buñ defee jàngat ci coalition yi mag yi taxawoon muy coalition. yi coalition Wallu euh, gëm sa bopp ak peut-être euh, gox yu bees wala bunt yu see bunt bi nga xam ne ñu presque booy xool ñoo gën a ko ci élection yi boo xoolee kenn ku ci nekk cheminement bi mu jël surtout coalition Yewwi Yewwi je sais que ni ñu ni ñu réglé seen euh, problème Euh, choix candidat yi. Euh, loolu war na cee mën a jàngat lu bari war nañ cee mën a jàngat. kon kon jàpp nga ne Yewwi amoon nañu organisation. Ah, waaw bon sur le plan bu dee ci côté côté ni ñu fexe ba régler régler affaire candidature yi loolu xam naa ne certainement expérience bi ñu dund 2009 joué na ci lu bëri bëri ak te ñu bëri ñu nekkoon foofu noonu demoon nañu élection en 2009 donc euh, niñ ñu ko réglé daal. permettre na ñu mën a am bon du frustration du ñàkk ay parce que xëccoo la euh, mais ñoom ni ñu ko reglee daal gis naa ne euh, par rapport ak ñeneen ni ñu ko réglé bon expérience su gox yu bees aussi mu ngi fii peut-être que comme coalition bu bees la day laat ay jàngat yu gën a xóot yu see bunt bi aussi def nañ ay résultats yu baax je sais pas comment ils ont fait pour y arriver mais daal xam naa ne Yewwi que je maîtrise ak wallu donc gis naa ne ñoom ni ñu réglé la question des candidatures Euh, doonoon euh, c'était douloureux comme comme comme ça boo bëggee def lu mel noonu mais nag gis naa ne globalement euh, boo ko xoolee ak résultat yu ñu am ak aussi ni ñu position positionné candidat yi c'est ça a été plus ou moins da gis ne utiliser nañ ay critères yu bari waxtaan ci ñoom seen biir ba juboo ci après ñu appliquer loolu buñ ko appliqué gis nañ résultat yi mu joxe. donc loolu jàngata nga ci loo xamante ni bii euh, war nañ ci mën a tirer ay leçons pour les prochaines séances. d' accord léegi gis nañ ne euh, waa Yewwi ñoom nee nañu euh, benn bokk yaakaar gañëwul benn bokk yaakaar moom nee na moom moo gañe waaye nag li ñu nemmeeku aussi. benn bokk yaakaar man Sénégal au niveau national. benn bokk yaakaar nee na ñoom au niveau national ñoo gañe Yewwi contesté na loolu beneen remarque bi mooy li ñu gis mooy presque ay euh, villes yu mag yoo xam ne euh, am na si yoo xam ne opposition bi ñoo ko yoroon Benno Bokk Yaakaar ba koo jël far mu rëcc leen am na foo xam ne Benno Bokk Yaakaar ñoo fa nekkoon Yewwi jël ko fu ci mel ni ay euh, ville bu Géejawaay wala ay commune ci biir Géejawaay wala fii tamit ci dakaar tamit gis nañ Yewwi écart bi mu fi rawee boo demee fu mel ni Ziguinchor tamit aussi Euh, boo demee fu mel ni Diourbel ak euh, fu mel ni Touba aussi. Euh, ñu gis ne foofu am na fa taxawaay bu fa yeewi am xëccoo boobu noonu yow ban commentaire nga ci def tey boo doon wax ne diw moo gañee si élection yi wala diw moo perte ci élection yi kan la. bon man sama métier moo tax man statisticien la <laughs> donc am na loo xamante ni bii duma ci nekk di ci warante. mais mën nañ ko jàngat bu fekkee ne en terme de nombre de voix et de nombre de communes ak euh, département yi ñu gagné benn bokk yaakaar moo ëppale loolu moom c'est inconnu kenn du ci nekk di warante maintenant loo ana loolu nga wax noonu muy axe électoralu Sénégal Dakar Thiès Diourbel nga boole ci yenn euh, yenn région de taille moyenne wala yu ko mel ni Ziguinchor. su fekkee da nga gagné ci ñett yooyu noonu. bu ñu jëlee bu ñu jëlee expérience élection 2009. ça au dire que bu ñu góorgóorluwaatee tuuti rek. war na cee mën a yokk lu bare bare bari parce que wane na ni ñi nga xamante ni ñoo doon ñooy ñooy ñooy ele pratiquement électorat Sénégal fi mu concentré wu. Euh, pratiquement foofu booy xool opposition moo ko gagné donc muy Dakar. Dakar Pikine bi ngay dégg ni am na ba tey warante waa wàllu ñu ngi réclamer la victoire bu fekkee ne da nga am quatre quatre quatre villes pratiquement quatre villes yi nga nga nga perte ko bon peut-être benn nga ci gagné donc euh, tu donc Thiès gis nañu résultat yi ñu bari yaakaaroon nañ kenn mënu fa jëli Idrissa Seck gis nañu affaire bi ni mu demee euh, taw xoon naa ci benn émission le 24 novembre 2020 avec votre collègue euh, Euh, Khalifa Diakhaté waxoon naa ko nag opposition bi dina recompose recomposé donc gis nañ gis nañ ne li ma mën a wax daal mooy euh, buñ buñ opposition bi njàngat mi du kii moo gañe wala kële moo gañe njàngat mi mooy naka lañ mën a defee pour consolider li ñu am déjà avec les élections locales de 2022 d'accord ci élections législatives yi ñu jëm Euh, yaa ngi woon ci wàllu candidat wala nga woon Thiaroye sur maire wala si ban bañaan nga demee woon. Euh, waaw man euh, wallu laa bokkoon dafa bokk ba léegi parce que foofu la coalition jot na bokk mais il s'est trouvé que Thiaroye sur Mer maire bi fa nekkoon maire PDS la te bon man moom laa doon combattre. moom laa doon combatre action sama mouvement ben du moom moom moom tax maa jóg daal parce que au début c'est vrai. mu taxoon jóg mais euh, boo xasee nekk dans le champ politique yaa ngi ci tu nag ci nekk wala nekkoo ci bon j'ai choisi ma nekk ci te comme nekk naa ci yàlla dogal aussi moom mu nekk maire PDS bëgguma ko woon gêner trop parce que xam naa ne bu ñu demee ci ay xëccoo euh, soit damay moom ma jiitu wala man ma jiitu mais même man bu ma waroon jiitu sax bëgguma woon ànd ak ñoom au niveau local parce que. Euh, expérience bi ma dund ak euh, un peu ak ak wàllu quoi beneen affaire bi mu ak ak PDS plutôt bon euh, moo taxoon mujj ñu dem ci bannière boobu. ban expérience nga dund ak PDS. que moom maire bi moo fa nekkoon moo fa nekkoon pendant presque vingt ans ou un peu plus euh, te gis nañ depuis 96 maire PDS moo fa doon nekk te waa Thiaroye-sur-Mer gis ñu woon seen bopp ci vraiment gestion bi donc du PDS dans son ensemble. mais le PDS au niveau local euh, avec euh, au niveau de thiaroye sur donc moo tax man bi ma waxtaan ak ñi may war a waxtaanal au niveau local finalement euh, ma ànd ak ñoo xamante ne bi ils étaient dans ànd nawle donc j'ai préféré dem nekk ci bannière boobu quoi bannière ànd nawle ànd liggéey. d'accord léegi Arona Touré yow nga bokk ci coalition jot na bokk ci wàllu nga jiite sa mouvement. pencum euh, Sénégal euh, léegi élection législative yi euh, ma ngi ma ngi dëgmal jàpp nañ ko fanweeri fan ak benn ci weeru weeru juillet opposition bi ñoo ngi wax ne ñoom d'accorduñu ci parenage bi yow lan moo ci sa xalaat. waaw man loolu moo ci sama xalaat ba d'accord ma ci parrainage bi wala boog d'accord ma ci ñi ñu defee parenage dans les grandes démocraties ou dans certaines grandes démocraties bu mel ni France par exemple boo fa demee am na parrainage euh, parrainage bi Sénégal di def euh, dafa am benn principe boo xamante ni bii euh, lu ñu tudde principe constitutionnel mooy maanaam loo xamante ni ñëpp ci bokk maanaam ci dëgg taxawaay taxawaay la boo xamante ni bii war nañ war nañ ko mën a taxaw ci lu mel ni mooy que l'égalité de tous les citoyens devant la loi maanaam cest tey jii nii waaw maanaam ñëpp citoyen yëpp ñoo yem ci kanamu yoon ñoom ñëpp ñoo yem ci kanam yoon waruñu privilégié kii wala ci kële bu dee ci cadre élection la waruñu privilégié candidat bi ci kaw candidat ba la dañu gis ne ci expérience bi ñu dund en 2019 expérience bu bu metti la ci Sénégal muy euh, ay candidat yu bëree bëri yu bëggoon dem élection ñu fexe fexe ba écarté leen ci ci par le biais du parrainage Euh, boo fàttali ko bu baax premier ministre bi dem na ba sax annoncé ne cinq candidats lañu am te à fin effectivement on cinq candidats lañ loolu tey na xel lool euh, dafa bëri lu laxasu ci parenage bi loo xamante ni yow xama ko man xaw ma ko keneen ak keneen xama ko bu fekkee ne dañuy atte dañu war a xam ci ban base la ñuy atte bu ñuy rejeter say parrainage ñu xam lan moo tax bu ñu koy accepter ñu xam lan bu ko defee kenn ku ci nekk yow di nga xam boo jógee di uti parrainage lan ngay wuti pour mën a jàll loolu boo déggee ñu bari ñu nekk ci opposition bi dañuy wax ne parrainage bi boîte noire la maanaam euh, ñun ñi nekk ci opposition bi xamuñ peut-être waa ñu nekk ci pouvoir mais ñi nekk ci opposition bi xamuñu. mais mais mais bu ñu la rejeté duñ la wax fii lañ teg ci base yi lañ ko teg. mais mais man amuloo benn possibilité nga man ko vérifier wala nga mën a xam ne exactement loolu la ou pas euh, <laughs> donc loolu mooy affaire bi donc dinañ la ko wax parce que état loi moom lépp lu ñuy def day am motif day am ay motif de rejet mais problème yi mooy. lan la ñuy accepté ak lu ñu dul accepté nu ñu koy accepté ban yoon la ñuy jaar ba accepté ko loolu moo leerul ci parrainage. xam nga tey par exemple tey buñ ne la Arona Touré yow euh, war nga wut 1000 parrain ci ci Dakar suñ la waxee buñ ko rejeté dakaar na da nga am ay doublon xanaa dinañ ne la Modou njaay mii nekk ci sa parrain yi Modou njaay moomu indi firnde ne nekk na parrain Benno Bokk Yaakaar indi firnde tamit na Moodu njaay moomu même carte d'identité même taille nekk na parrain tamit ci coalition euh, beneen coalition est-ce que leeral bu mel noonu indi la ne la Moodu njaay mii nga jël Arona Moodu Ndiaye moomu ma ngi ci benn bokk yaakaar te benn bokk yaakaar moo la njëkk a déposé ay parrain est-ce que leeral bu mel noonu dina am ci leeral boobu. loolu loolu loolu mooy mooy problème bi loolu loolu moo ci problème parce que déjà loolu dafa joxe possibilité. pour que tey jii nii euh, nga ki ëpp doole ki ëpp xaalis par exemple dem jënd ay parrains yu bari te loolu lañ def loolu lañ def élection yi passé dem jënd ay parrains yu bari pour que ñu mën a arrivé ci li ngay wax ni par exemple bu ñu newoon maximum nombre maximum bon fixé c'est fixé par la loi ah trente euh, actuellement trente cinq mille huit cent et quelque pour euh, élection législative cinquante cinq mille trois cent et quelque trois cent vingt sept ou trois cent cinquante sept pour ci marge boobu nga war a nekk. mais bu ñëpp yamee ci marge boobu noonu. donc mën na am mën na am ay doublon mais dublon yi du du du du bari boo dindilee benn bokk yaakaar du du xañ du xañ keneen du xañ keneen. Ah, parrainage maanaam maanaam maanaam tey par exemple tey bu bu bennoo moom day day bu au lieu que mu jël cinquante cinq mille yem si. day dem ba jël deux mille trois cent mille cinq cent mais man nañ sax actuellement maa ngi waxtaan démb ak ak benn waay bu ma ne. Euh, dans la zone de Tamba euh, am na benn parti pour ne pas le euh, boo xamante ni dafay dem jël carte d'identité nit ñi tey commencé nañu mel noonu dem jël nit ñi seen ay carte d'identité xam nga loolu ci yoon ci ci ci loi kenn amul droit def lu mel noonu. yooyu tricherie yooyu noonu moo ci nekk c'est-à-dire que parrainage bi ci gàttal su ma ci bëggoon wax ñun ñëpp gis nañ yow journaliste nga da ngeen di gëstu. gis nañ expérience bi ñu ci dund en 2019 c'est une expérience catastrophique et qui n'honore pas le Sénégal beneen affaire bi mooy man duma juriste mais CEDEAO la cour de justice de la CEDEAO nee la leen parrainage bi ni ñu koy defee au Sénégal baaxul mën leen ñaar moo mën a nekk soit dangeen koy dindi carrément wala boog bu ngeen koy defati ngeen defe ko ci anam boo xamante ni bii beneen anam lay doon bu ñëpp dëppoo Sénégal depuis 1992 processus électoral consensus lañu lañ lañ lañ jël lan moo tax ñoom ñu forcé bi yoon lan moo tax mënuñoo toog waxtaan bu juboo ci dara ñu def ko parce que on ñun ñëpp ay mag lañ et puis on est suffisamment intelligent Sénégal am na expérience électorale depuis avant les indépendances lan moo war a mën a tax mënuñu toog ñun ñëpp autour d'une table discuter loo xamante ni ñun ñëpp ci d'accord ñun ñëpp ci dëppoo ñu def ko ñëpp xam nañ ni 2019 ce qui s'est passé mais honorable kenn a commencé par le parti au pouvoir mais xamoon nañ ni dañu bëggoon que seen candidat jàll par force et ce qui arrivé. mais mais est ce que mënuñu woon tamit tey par exemple tey solution bi du woon ñu ne rek maanaam coalition bu nekk par exemple tey euh, gën gaa bëri cinquante cinq mille parrain nga yem. loolu loolu moo nekk ci loi bi. c'est à dire que li ngay indi dañu la indil. dañu la indil minimum ak maximum. waaw ci diggante boobu nga war a am nombre de parrain tey jii nii boo collecté bu fekkee da ngay collecté warloo woon dépassé. le plafond. waaw léegi soo ko dépassé. boo boo dépassé plafond bi yi ngay wax ni. Uh-huh. nit ñi duñu ay dof. lekk kon la mu tax ñu dépassé plafond boobu. mais pour pour pour ba pour pour créer ce qu'on appelle un phénomène d'éviction. c'est-à-dire que yow voilà fexe jalgati loi la en tant que tel parce que fixé waxuñu ko woon de façon aussi claire. ba léegi sax leerewul noonu ci bopp nit ñi am nañ minimum am nañ maximum. te loolu ngay présenté ci ñoom ni ñu ko inter ni ñu ko interprété mooy ci ay parrainage yu baax. ngay nekk ci diggante boobu mais man ni ma ko jàppee man mooy nombre de pare yi ngay présenté ci diggante boobu la war a nekk maintenant ñu xool ñaata moo ci baax pour xool ne tu n'as pas dépassé wàccuwuloo ci minimum waaw mais c'est c'est que c'est que li nga wax ni man dama jàpp ne waruñoo xool euh, minimum kese mais dañu war a xool tamit maximum bi fii nga war a yem waaw bu dee collecte bi. bu dee collecte mais bu dee validation bi. minimum bi lañ war a xool. waaw te moom la ñuy xool sax c'est ça la loi dit. léegi xam nga tey par exemple tey ah, ah, li ngay déposé si parrain mën nga dem collecte parrain yu bëree bari mais dañ ne la booy déposé lii nga war a déposé te li nga déposé rek euh, jàpp naa ne mooy li valable. non mais du ci du ci base boobu la ñu parce que ni ñu loolu laa lay expliqué sànq c'est-à-dire que ni ñu def sax ba rejeté ñeneen ñi même bu fekkee dañ ko motiver. ñun ci opposition bi dafa tey suñu xel dafa tey lool suñu xel affaire parrainage bi ni muy xewee nii au Sénégal loolu ñun opposition bi wax dëgg yàlla parce que xamuñu on ne pas dañu war a toogaat Abdou Khadre. expliquer parrainage dañu war a toogaat waxtaan ci lu leer mu wóor la ne yow mii Abdou Khadre tey par exemple bu ñu la nee Abdou Khadre da ngay déposer candidature pour élection locale nekk maire à Thiaroye-sur-Mer wala nekk maire à Mbadakhoune lii ak lii ak lii ak lii ngay déposé mais c'est très clair xam nañ ko élection yi ñu mujjee def nii kenn waxu fi ay waxu processus électoral kenn déggoo fi kenn ko wax no xam nga lu tax parce que dafa leer kenn waxu fi waxu dégg nga ñëpp képp ñi évaluer yëpp déggoo ci kenn ku ci wax waxu pro ba ci ñi ñu candidature ñu rejeté ba ci candidature ñu rejeté candidature euh, ville de Pikine Yewwi Askan Wi dañ ko rejeté mais da nga dégg ñu ci wax ñu ci wax dañoo def seen recours bi ñu defee recours bi recours bi jox motivé lan moo tax ñu rejeté mu nekk ci loi bi ñun ñëpp ñu d'accordoon ci parce que loolu mooy consensus bi. mais mais mais parrainage bi tamit ñu bari wax ne état bi moo yor base de données ñëpp. mais loolu loolu mooy bi cest à que état bi moo yor euh, moo yor yor. moo yor euh, base de données bi système de contrôle bi système de contrôle bi ñun ba tey maîtriser wuñ ko. Hmm. ba tey wu ñu système de contrôle bi. léegi la ma tax ngeen bëgg see dem élection. no mu man parce que bon élection moom la politique de la chaise vide moom dañ ko war a éviter bu fekkee ñu ngi ko ñu ngi manifester dégg nga dégg nga point de presse yi ñu am ak manifestation yi commencé am ak dénonciation yi presque parti yëpp ba ci PDS bët ki dem parti yëpp Sénégal ñëpp ku képp ku dul opposition képp ku dul ku dul parti au yow war d' accord nga ne. parrainage bi nañ koy defee waxuma ne parrainage baaxul de déedéet waxuñu loolu opposition bi waxul loolu waxul ne parrainage baaxul dans les grandes dans certaines grandes démocraties dafa am parrainage mais comme niñ koy defee niñ ko defee ci élection locale yi passé rejeter ay candidature ñooñu dem jaar fi ñu war a jaar ci yoon ba ñu jox leen dëgg wala ñu ñàkk leen a jox dëgg ba pare ñu d'accord ci dem ci conditions yi élection loolu moo amul ci parrainage loolu laay wax <laughs> loolu laay wax euh, jërëjëf euh, Arona Touré euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h moom moo jiite pencum Sénégal bokk ci coalition wàllu kon yéen daal yéen a ngi def ay conférence de presse dégg naa sax société civile bi le 23 mars dinañu amal mari manifestation mm. léegi su dee président bi Macky Sall dellutuwul ginnaaw lu ngeen di def. bon mënaguma xam exactement mais mais manifestation ak lépp loo xamante ne bii dañ dañuy day bañ day tax ñu bañ ko opposition bi ñu ngi ci te am na ci plan d'action yoo xam ne mënuloo ko révéler parce que waxtaanuñu ci ñun ñëpp ba tombé d'accord ci mais am na ay éléments de manifestation yoo xamante ni am na pour l'instant ce qu'il faut comprendre mooy man li ma li may li may li ma jàpp mooy euh, Sénégal te yi passé élection locale yi dañu suspendre parrainage amoon na parrainage mais dañ ko suspendre yàgg nañ di waxtaan di jubu ci loo xamante ne bi dafay permettre pour que ñu dépasser yenn crise yi nga xamante ne c'est des crises inutiles affaire parrainage ñun ñëpp xam nañ ku nekk ci parti au pouvoir comme ku nekk ci opposition xam nañ ne li mu indi ci ay jafe-jafe moo ëpp li mu rek la. waaw mais mais parrainage bi amul tamit euh, Touré élection est-ce que de cent listes bu ñu ko fi gisee wala cent candidats. élection bi ñu bëggee réduire liste yi liste élection yi l'on fait élection locale yi passé élection locale yi nii liste yi bariwul de par rapport ak ni mu meloon en 2014 on était ay soixante et quelques Euh, donc te sax 60 quelques listes yooyu ils n'étaient pas présents sur tout le territoire da nga gis koo xamante ni dafa fay 15 millions pour être présent dans quelques communes mais boobu loolu c'est un premier filtre déjà premier filtre bi mooy ñoom ñoo fixé seen caution te gis nga ne caution bi opposition bi l'opposition avait proposé 10 millions ñoom ñu yóbbu def ko à 15 millions la société civile proposé une partie de la société civile proposé 5 millions Euh, wala bokk ñeneen ñi les non alignés yooyu proposé 5 millions malgré tout ñu def ko à 15 millions c'est un filtre loolu filtre la te gis nañ ni c'est relativement efficace ci élection yi ñu jóge nii parce que bëri na ñoo xamante ni tey bu filtre boobu amoon du ñu dem ci ay coalition waaw mi xam nga local aussi dafa am différence ak euh, élection législative ndax élection législative euh, dafay am li nga xam ne mooy liste nationale yow mi nga xamante ni tey am nga sa coalition dugal sa 15 millions. da ngay nekk ci Sénégal gi yépp bu dee nag élection locale amaana yow mi nga xam ne tey yaa dëkk Bambey amoo ay représentants yu nekk Kolda mënuloo fa mënuloo fa am mënuloo faa am liste. loolu moo tax si si c'est presque la même chose c'est-à-dire que soo dugalee quinze millions da ngay présent dans toutes les communes du Sénégal et dans toutes les villes hmm. dans toutes les municipalités qu'on appelle les municipalités da ngay présent boo dugalee benn quinze millions. ci les da nga da si non élection locale. waaw ah, mais mais mais. non dama lay expliquer rek xaaral xaaral ma ñëw foofu cest à bi nga nekk mooy dugal caution bi. liste bi nga nekk tey jii tey jii boo jëlee ànd nawle. ànd bi ma nekkoon dañu dugal benn 15 millions pour les élections municipales ak 15 millions pour les élections départementales. c'est comme ça que ça se passe. benn yoon ngay dugal 15 millions. oui je mu mu bu fekkee ne da nga tu es intéressé par. municipal ak euh, départemental day doon 30 millions mais bu dee municipal rek moo la intéresse mhm. benn 15 millions c'est la même chose c'est-à-dire que fii nii fii nii tey tey jii nii yeew yi yeew yi dama la jox benn exemple rek wala wallu pour dire wallu bu doon dem élection benn 15 millions lay déposé. non xam naa ne benn 15 millions ngay def ngay ngay def tey par exemple tey ànd nawle da ngeen defoon 30 millions. Mhm. pour bokk ci élection euh, ci bokk ci élection ah, municipale ak élection départementale waaye am na commune yoo xam ne. Euh, amul ko fa jël récépissé ànd nawle bu fa kenn jëlul récépissé ànd nawle mënu fa am liste ci élection locale yi ci wala ci élection élection départementale yi. Euh, non non non c'est-à-dire que tey boo jëloon boo jëloon élection boo jëloon élection législative tey parce que élection li muy xewee ci bu dee élection législative la ak élection locale c'est presque la même chose sauf que échelle yi moo. échelle yi moo wute. élection locale élection locale dama lay jox élection locale. ne muy passe comment ça se passe au niveau man Thiaroye sur Mer par exemple mais damay am liste majoritaire mooy mhm. liste bi nga xamante ne moom la moom la prétendant maire bi di jiite mhm. et tu as une liste proportionnelle mhm. c' la même chose c'est-à-dire que tey boo ñëwee élection élection euh, législative la liste nationale mooy doon la liste majoritaire la liste euh, beneen liste bi la liste au niveau des départements doon la liste euh, proportionnelle. Mm-hmm. noonu lay demee. Mm-hmm. c' presque la même chose. d' accord mais te boo xoolee sax indiwaat nañ liste proportionnelle bi. Mm-hmm. liste proportionnelle à l' du département indiwaat nañ ko ci élection locale yi passé xam nga élection 2014 amul woon. élection parce que dañ doon jël benn quota de conseillers. ci ñu jóge ci communes yi ñoom ñooy dem au niveau du département directement. wala ñooy dem au niveau de la ville directement. mais élection yi passé na indiwaat nañ la liste proportionnelle ce qui fait booy xool élection locale ak élection euh, législative question de d'échelle la rek mais c'est presque la même chose léegi euh, bu dee tey par exemple tey euh, consensus am na ndax gis naa wallu Sénégal ñu ne ñoom dañu bëgg rencontrer njiitu réew mi ngir ñu waxtaan ci wàllum parrainage bi est-ce que yow appel boobu wàllu def d'accord nga ci non bëgguma critiquer trop mais li ma xam daal mooy que depuis 1992 ba tey ba le code consensuel de cent 1992 Sénégal jafe-jafe bu fi mus a am ci élection dañoo toog waxtaane ko dañoo toog waxtaane ko opposition bi yëpp waxtaane ko ba ci dialogue politique. bi kon d'accord nga li wàllu def. non je peux pas dire que d'accord ma ci wala d'accord mais daal li ma bëgg a wax mooy. na doon loo xamante ni opposition bi yëpp ñu ci. non non euh, Arona Touré man maa bëgg a xam. ba xam Arona Touré jiite mouvement pencum Sénégal wàllu Sénégal nee nañ dañoo bëgg a coal Macky Sall invité coalition yépp ñu toog waxtaan ci parrainage bi xalaat boobu yow ndax d'accord nga ci. non loo loolu laa wax c'est-à-dire que loolu laa wax léegi c'est-à-dire que actuellement coalition yi nga xamante ne ñoo fi nekk wala bokk même bu dul coalition les parti politiques du Sénégal ak le président Macky Sall pas pas sax président Macky Sall avec l'État du Sénégal ñu toog li nga xamante ni bii mooy jafe-jafe yu ñuy am donc le parrainage parce que fi mu toll nii booy xool <clears throat> affaire fichier bi déggatoo pratiquement ko ci wax te naa ko xalifa euh, Khalifa Diakhaté euh, <laughs> le 24 novembre 2020 newoon naa ko affaire fichier bi dañuy sonn rek jarul sonn coono bi ñu ciy daj jaaro ko parce que euh, fichier électoral la ñu demee fichier électoral bi ñu demee depuis 2000 fichier électoral boobu la ñu demee te terewul parti au pouvoir ñu koy gagné bon dina am ay rëq-rëq nag du ci am du ñàkk ay jafe-jafe dañu waroon sax bu fekkee ne dañu bëgg a nekk ci processus d'amélioration parce que man spécialiste performance la bu ñu war bu ñu paree élection comme nii élection yi ñu paree nii bu ñu paree rek immédiat loolu sax état bi ma ko war a def ànd ak ci ak opposition bi suñu paree chaque fois dañu war a xool lan moo dox ak lan moo doxul def benn genre évaluation globale ñu ne voilà fichier bi lii moo ci baaxul ñu war ko améliorer bala ñu egg ci yenn élection yi euh, processus bi ci boppam bi ñu doon wax ñun nga xam xamante ni dañ doon wax ne bu processus pare parewul fichier bi ana tey processus bi ak fichier bi mais li ci waroon d' accord d' nañ ko ci waxtaan nañ ci jubóor nañ ci te biñ ci demee appliqué ko ci élection yi mais euh, dafa dafa dox même chose la war a doon ci parrainage ba parrainage bi warul doon lu extraordinaire ce que l'opposition di c'est très clair amuñu ay moyens pour euh, xam exactement ce qui se passe au niveau du parrainage leerul ci bopp nit ñi processus bi ñuy bi ñuy nangule wala ñu lay bañale leerul. Euh, Arona Touré aussi yéen parfois. Euh, kenn du xam euh, lu ngeen bëgg ndax yéen bu leen waxee caution bi 15 millions ngeen ne dafa bëri bu ñu leen parrainage ngeen ne comprendre leen ko wala yéen da ngeen a bëgg kon élection yi euh, ñu dàq ko ndax bu dee tey dañu bëgg supprimer parrainage bi mënuñoo jekk-jekk rek supprimer nañ ko il faut mu am procédure. non waxuñu sax ne dañ koy supprimer nañ ko waxtaanee la ñu wax c'est-à-dire parrainage mën na ci am. mais nañ ko waxtaane ba xam nañ ko naka lay demee loolu loolu la wax ah a pas dit nañ ko supprimer peut-être que comme ni ñu defoon ci élection locale yi ñu suspendre ko parce que mën na nekk. loolu loolu loolu yëpp loolu yëpp euh, waxtaan la ci kaw waxtaan lay doon. maanaam ngir waxtaan bu juboo am beneen affaire bi ngay wax ci ci ci opposition bi bi nga doon wax léegi ci caution bi caution bi la loi est très claire la loi dit que te sax loolu pratique bu baax la pour te dire que ne ñun man en tout cas personnellement. suñu gisee lu baax dañ naan lii lu baax la par exemple ni ñu def ni ñu def pour fixer la la caution mais la loi est très claire la loi dit que c'est le ministre de l'intérieur mooy def concertation avec les partis politiques et les les, les coalitions ñu def seen ay propositions le parti au pouvoir comme tous les autres partis ou comme toutes les autres coalitions def def proposition ñeneen ñi de seen proposition moom moom sur la base de ces proposition la mu fixer. le montant de la caution c'est comme ça que ça se passe da nga dégg coow déggu ci coow de l'opposition bu ñu defee processus boobu ba pare déggu ci kenn wax nañ ñi nañ ne dafa cher opposition bi 10 millions la proposé parti pouvoir proposé 30 millions am euh, benn ñenn ñu proposé 15. Ah, mais yéen yéen xaaral rek dama lay expliquer am ñu proposé 5 millions ñoom ñu ñëw proposé 15 millions comme aux élections locales. waaw mais mais après opposition bi lan la wax. dara mais Arona mais Arona am na ñoo xam ne yéen euh, yéen ñi nga xam ne yéen a bokk ci coalition yu mag. Mhm. ay wallook mhm. euh, benn bokk yaakaar ak ak ay yeewi askan week yéen mhm. ak ay gëm sa bopp amu leen problème mu quinze millions waaye am na si ay ay opposition bi ñoo xam ne ay parti politique yoo xamante ni amaana euh, amewuñ noonu amewuñ noonu xaalis mais ñooñu jàmbat nañ ko. ndax am na ñeneen tamit ñoo xam ne ci opposition bi wala ñu bokk ci société civile bi am sañ-sañ dem ci ay élection euh, ñooñu nee nañ caution dafa bëri. waaw mais expert moo loolu laa wax naa ko sànq xëy na xaw ma kañ la am occasion Sénégal pour di toog loolu waroon naa mën a am toog peut-être une fois tous les deux ans wala une fois tous les trois ans. pour discuter de façon sereine duñu xaar ba crise am ñu discuter ci affaire élection élection yi passé élection locale yi benn jàngat buñ ci war a mën a def ci ni mu demee parce que ñu ngi wax ne Sénégal dafa bare ay parti politique mais boo xoolee bu baax a baax a baax am na ay coalition yu mag ay parti yu mag disons entre guillemets mais am na ñeneen ñoo xamante ne bi ils se sont organisés pour dem ci élection yi nekk ci cas bi nga wax ni kaa ay kaa gox yu bees par exemple da gis koo xamante ne benn commune moo ko intéressé dans tout le Sénégal gis koo xamante ni bii peut-être cinq commune wala dix commune ñoo ko intéressé parti politique la mais ils sont pour dem élection dañu dem waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo bokk à peu près nu ñuy gisee. Mm-hmm. ñoo bokk à peu près benn lii ñoo bokk à près lu ñu bëgg ñu ànd ak ñooñu ñu dem élection peut-être que bu élection yi jeexee ku nekk mën ngaa delluwaat def li ngay def donc terewul yow. parce que tey bu ñu la woon ñi buñ buñ buñ ko fixé woon peut millions di nga gis koo xamante ne xëy na benn commune moo koy intéressé dem jël 5 millions joxe mais tey boo déposé sa 15 millions tu es tu es présent dans toutes les 557 communes du du Sénégal ak dans toutes les villes du Sénégal. loolu loolu loolu noonu ça lim li mu permettre pour ñu am ko ci élection yi passé mooy rationalisation processus électoral bi parce que loolu aussi ci la bok ci la bokk parce que. Euh, ay la yowén nag nga dugg ci benn bureau de vote fekk fa quinze vingt 30 list loolu ñun ñëpp xam nañ ne même pour électeur bi bi bi bi ñëw di di di di di di di voter sax day poser problème alors que ki koy def xëy na bu demee élection ay 100 wala yam wala 200 rarement nga ci gis koo xamante ne xëy na mën naa mën naa mën naa gagner élection ah, donc waaw hmm? léegi yéen bu ngeen bëggee ñu euh, waxtaan ci parrainage bi bu dee état bi euh, d'accord na waxtaan boobu kon force danañu dàq élection yi. no pas forcément. pas forcément mën nañu waxtaan xañ na si si mën nañu waxtaan xool lan la ñuy def bu dee dañu suspendre ñu suspendre bu dee dañu gën a leeralaat ñu leeralaat bu dee dañu éclaircir parce que comme li ma doon expliquer sànq naka la ñuy appliquer ak naka la ñuy contrôler naka la ñuy contrôler ak nu ñuy defee maanaam na leer ci bopp nit hmm. nii nii nii nii bu ñu forcer soit. day créer benn crise cest à opposition bi nekk fi di manifester ci mbedd mi ak yooyu noonu ba mu indi ay jafe-jafe wala boog ñu ñu xool ban ban euh, ban ban wala boog ñoom ñu ñu ñu contre leur gré ñu dem noonu élection loolu mën na nekk ñaari ñaari possibilité ah, jërëjëf euh, Arona euh, Touré yow yaa jiite mouvement pencum Sénégal nga bokk ci coalition wàllu léegi euh, ñu wax ci nag génn ci politique bi gis nañ ne dund gi jamono ji dafa metti njëg yu bëree bëri cher na gis nañ kuréel yu bëree bëri ñoo ngi alerté même Emmanuel Macron sax nee na soo muytulee feek fukki weer ak ñaar jàpp fukki weer ak fukki weer ak juróom-ñett xiif mën naa am ci Afrique mën naa am ci déndu Europe. Euh, li tax ñu laajal laaj boobu yow sa xel dafa màcc jëm ci wàllum natt mbirum pauvreté lan nga xalaat ci loolu. waaw seetlu nañ bu baax ne euh, njëkk yi dafa yokk li gën a yokk njëkk yi ba koy xool mooy mooy dollar bi dafa yokk plan international la xam nga loolu xoolee dollar bi dafa yokk rapidement te guerre bi xew en Ukraine aussi mën na ko gën a yokk mën na gën a sax yokk njëg yi parce que déjà dañuy am. Euh, problème aussi ci ci ci yenn route yi yenn pour transporter yenn pour transporter marchandise bi mu jóge place bi wala place bële. Mhm. donc loolu loolu actuellement euh, moo waral njëg yi yokk bu baax a baax euh, au Sénégal seetlu nañ ne njëg yu bëri dafa yokk ndax loolu la pétrole bi baril bi petrole bi dafa yokk ku baril bi dafa yokk. Euh, te xam nga ne bu baril bi yokkoo euh, dafay yokk transport bi déjà coût du transport te loolu dañ koy répercuter ci coût marchandise yi beneen affaire bi mooy dollar bi aussi dafa yokk donc ñaar yooyu moo indi au plan international euh, donc njëkk yi yokk bu baax a baax a baax a bon ñun leçon bi ñu ci war a tirer ñun en tant que pays africain pays Sénégal ou Sénégal mooy ñu gën a góorgóorlu ci sécuriser ñun suñu consommation amoon na lu ñu commencé woon lu intéressant mais xamatuma sax fan la tollu parce que dañ ko renvoyé renvoyé renvoyé ba kenn xamatul mooy par exemple autour du programme d'autosuffisance en riz Sénégal commencé woon na lu intéressant ci loolu 2017 la ñu waxoon nañ ci la Sénégal di autosuffisant en riz ba fii may wax ak yow nii on pas encore autosuffisant li ñuy importer presque moo dafay tolloog lañuy produire donc ba tey jii ni am na ay yu mag a mag a mag yu Sénégal war a def ci domaine boobu pour que ñu mën a sécuriser consommation bi Sénégal yi d' abord avant sax ñu wax waxu njëkk wala ñàkk ñàkk njëkk daal. mais mais euh, Arona lan moo tax ñun mënuñoo fexe ba am indépendance alimentaire ci li nga xam ne sax. amaana mën nañ ko bàyyee fii ci réew mi ndax ñun lu ñàkk fayda sax dañ koy euh, dañ koy jëggaani euh, maanaam ñun matu matuluñ dara lu waral loolu ah man de wax dëgg yàlla xamuma ko tollool loolu bokk na ci li tax ma engagé en politique que bu dee Afrique de façon globale. non ah, moom laay wax bu dee Afrique de façon ma ah, Sénégal bu dee Sénégal am nañ ay euh, am nañ ay suuf am nañ ndox Sénégal ma nga ko wax ci benn émission euh, ci seen benn kam euh, benn natango ne ndox ndox ci àdduna. Euh, moyenne mondial bi maanaam li nga xam te ne bu doon seddoo ndox mi existé ndox mu ñuy naan ak ndox mu ñu utiliser pour 1000 mètres cubes la part tête Sénégal on est à 3000 mètres cubes maanaam am na ñetti yoon li nga xamante ni bi moom la benn di soxla ci boo ko jëlee ci àdduna ñun am na ñetti yoonam am nañ suuf am nañu ay noor ay nawet tey boo demee Maroc di nga xam la importance su noor nawet te pourtant Maroc dañu dañuy exporter clémentine yi ngay gis fii lu ci bari Maroc lay jógee. Ah. la wax nag léegi mais loolu mooy ñun manque de volonté politique rek la amul leneen c'est-à-dire que kenn mënu ko justifier neneen parce que am nga lépp dafa mel nii ki nga xamante ne bii da nga da nga nga euh, sa sa sa sa sa sa ku jigéen ki nekk sa biir kër war a togg nga dem bon intéressé les si seen la jaxate la nga dem ndugg yi am sa lépp war a war a togg mm-hmm. nga ne doo togg wala doo togg lu baax noonu la mel nous avons tout lépp la ñu am. ressource minéralogique Afrique moo ko fi ëppale pratiquement ci monde bi presque 30 pour cent ay suuf tey dangay gis ñu jógee ba ba ba Inde Chine ñëw dans les pays africain di fi jënd suñu ay suuf di bàyyi pour di ko exporter seen ay dëkk. loolu commencé na am te Sénégal sax peut-être eggagu ci benn niveau mais boo duggee ci dëkk yu bare bare bare fi mu toll nii des na tuuti problème boobu lañ nar a am parce que. Euh, boo matul mu créer guerre parce que euh, nit ñaa ngi jóge feneen di ñëw di jënd seen ay suuf di bay pour di exporter donc ñun man ñun on comprend pas man en tout cas li ma gis mooy ba volonté manque de volonté politique laa ko mën tuddee. am na expérience boo xam te nii te Sénégal chance boobu la ñu am amoon nañ expérience bu ñu dundoon ak lu président Wade bu ñu tuddoon euh, Goana Goana bi tey boo xoolee am na ay produits yoo xam te ba tey Goana la tudd te ci boobu la jógee. jékki-jékki jël benn moment jël voilà benn somme bu bu am doole. dugal ko ci dugal ko ci mbay mi mais mu commencé di produire des produits horticoles. Mm-hmm. te jii nii euh, oignon oignon muy soble bi dañ koy exporté. Mm-hmm. ay carottes beeg yëpp sax te te pourtant ah. producteurs yi sax boo xoolee dañuy produire lu tuuti ngir bañ mu yàqu fi. ay infrastructure de conservation rek presque mën na régler problème loolu loolu mooy coow li parce que euh, loolu beneen affaire la foofu nga duggee noonu infrastructure de conservation équipement de conservation. problème bi mooy léeg-léeg sax da nga naan est-ce que état bi am na volonté pour parce que man léeg-léeg j'ai l'impression que dañuy bëgg maintenir milieu waaw ci ci ci benn ni dinañ def ay effort nii mais da ngay sentir après dañuy bëgg chaque jour nit ñi di leen soxla voilà par exemple semence yi mais Sénégal pourquoi ñu depuis 1960 ba léegi ñuy jox ñuy jox ay semence aux paysans dans tous les pays du monde pays organisé wu yëpp déjà ñi nekk ci agriculture bu bariwul ay 5 3 pour cent 5 pour cent. mais semence bi dee ko dégg mais est-ce que ci baykat yi la dem. mais moom lay wax nii loolu lay wax léegi bu fekkonte ne nag. amul loolu am niñ ko système bi ñu ko defee jëm nañu fexe ba comme avec les anciennes ko léegi léegi la gën nit ñi léegi lañ gën a jàng da gis koo xam te na nga jàng ba pare am ay diplôme am ay diplôme d'ingénieur sax dem di bay loolu yëpp am na mais maintenant euh, nu ñu leen di organiser ñoom ñoom xam nañ ñu leen war a organiser paysan seen ñi bopp xam nañ comment ils doivent s'organiser pour mën di ut seen ay semence bopp di transformer seen bopp di jaayal seen bopp loolu yëpp mën na nekk. mais dangay gis benn mais mainmise boo xamante ne moom lañ ci def xëy na peut pour pour des raisons politiques pour d'autres raisons mais rationnellement kenn mënul comprendre surtout kaaw au Sénégal parce que liñ fi war a expérimenter yëpp expérimenter fi ñu war a jaar jaar nañ fa li ñu war a xam yëpp xam nañ ko mais du ñu def. d' accord <laughs> jërëjëf euh, Arona Touré ñu lay sant di la gërëm. Euh, ma lay sant bu baax a baax Abdou Khadre di la gërëm bu baax te di la ñaanal bu baax ci télé bi ak ci rajo bi. yàlla defal leen sutura bu baax a baax di remercier bu baax sa auditeur yi di remercier waa Thiaroye sur bu baax a baax di leen gërëm ñoom ñëpp di aussi remercier sama coalition la coalition jot na leen wax asalaamaaleykum jërë ngeen jëf jërëjëf euh, Arona euh, Touré mbokk moom la ñu invité woon tey mu bokk ci coalition wàllu Sénégal njiitu mouvement pencum euh, Sénégal moom la ñu invité woon tey di ko sant bu baax a baax ko gërëm mbokk yi Abdou Khadir Seck moo ci kàddu gi Mamadou Diawa Diallo ci wàllu machine bi mbokk yi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm